dëgg da nga jaar ci kaw siraat dem àjjana wala nga jaar ci kaw siraat daanu ci naari jahannam kenn ku ne na jël boppam individuellement wax ma buy jéggi siraat ndax day jàll àgg àjjana am day daanu ci naari jahannam ku mun a gën a tontu foofu yi ndax warulaa góorgóorlu bu baax a baax ci waajal ko war na noo góorgóorlu bu baax a baax ci waajal ko saar yooyu ñoon fi wax dañoo nekk lu bari ci yowmal qiyaam ak la fa nar a xew ci ay xew-xew yu turi yu metti moo nga ak yeneen saar yoo xam ne dañoo indi ay santaane yu diis xoolal xoolal laaya ji nga xam ne daa wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maak fastaqim jubal xocc jubal xocc kama umirta niñ la ko sant wa man taaba maaka yaat ñi tuub ànd ak yéen jub leen xocc gaa ñi ana ku mën a jub xocc ci nun ah wax leen ma ndigalal jubal xocc suñ jógee ah yàlla yàlla nee na jubal xocc te tàmbalee ci Muhammad kon leen yàlla buy santaane santaane jëlle leen ab sëriñ jëlle leen ab waliyu ci Muhammad lay tàmbalee ndax yàlla nu xam ne yàlla du moroom borom ku bëgg a fab sa sëriñ teg ko place yàlla nga xam ne da ngay nax sa bopp waaye yàlla du moroom borom la ku yaakaar ne bu àllaaxira sa sëriñ da lay bokk wala mu dugal la ci bokktaanam yóbbu àjjana sa sëriñ xamagul àjjana jëm wala safara sa sëriñ xamagul àjjana la jëm wala safara ak sama gëm sëriñ ak sama màggal sëriñ teewul ma xam ne benn sëriñ xamagul fu mu jëm fenn fenn yàlla moom dafa jëndale sëriñ si waaye Muhammad la waxal ne ko walaw laa an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la adaqnaaka daxfa alxayaati wa daxfa almamaat man yàlla budul woon ne man yàlla maa la jëmbat yow Muhammad budul woon ne maa la nargante yoon wa am na benn bis tuutee tee nga jàdd tuuti ànd ak yahudi ak nasaraan yi te tey boo ko defoon yow Muhammad boo ko defoon dinaa la mosal mbugalum adduna mu ñu dugle ak mbugalum àllaaxira mu ñu duble te doo am ko la dimbali Muhammad la ñuy wax gaa ñi ana sunu sëriñ ya ana sunu sëriñ ya Muhammad la ñuy wax bul nax sunu bopp nan jaamu ji yàlla fastaqim kama umirta ndigal la lu jóge ci yàlla yàlla na jubal xocc yow Muhammad yaa ñu ànd ak yow yow nga bokk ci ñaan ak Muhammad juboo xocc demoo bay bëgg a jub nga xam ne ku jubul sawaraan ci kanamam ngay ree ngay kaf ngay xool ngay wut àdduna foo ko teg maka jubit yi waxtu julli gi li ci des bariwul benn wax dagal na juróom-ñaari minute xanaa ko ñu julli te ñëw àggale waxtaan salaamaaleykum noo ngi nag kon ci waaw noo nekkoon ci do dooful iman feebar boobu ki mu dal symptôme yi nga xam ne moom la ñuy xamee ni kii feebaru dooful iman wala gëm yàlla gu feebar da koo dal symptôme yi mooy lan ak lan tudd nañ ci as lëf duñ noppee dooful iman lan mooy waral mu dal nit lan mooy waral ñu dal nit tudd nañ ci juróom-ñaari mbir duñ noppee ñu ñëw ci bu dalee nit ba noppi lu koy faj ñu waxoon ni médicament bu njëkk bi yi ñuy fajee rooful iman bi ci jiitu mooy alquran jàng ko ak settantal ko ak teewlu ko jàng ko am na ay aadab am na ay jëfin yoo xam ne jullit ñi bi ñu koy def war nañ ñoo sàmmoon teg moom war nañ koo xam li ci jiitu waxoon naa leen ni mooy nga jàng ko jàngin wu mel ne wa ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan jàng ci tajwid ci bañ koo gaawantoo bañ koo baral bañ koo jàddale yoon yi nga xam ne ak régal yi nga xam ne moom la jibril wàcce woon mu jóge kaw asamaan mu joxe ko nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci teggi ni jàng alquran nga wut ci ak waqaf ak wird woo xam ne bis bu nekk nangam lay doon nangam nga ciy jàng wird woowee lay loo mën rek saxaaba yi amoon nañu wirdu subox subox mooy maanaam semaine bu nañu wàcc ab kaamil am na ñoo xam ne daanañu wàcc ab kaamil ci lu yër semaine waaye su koy wàcce daal na fexe rek ba am benn kambiye maanaam benn quantité ci ay xisib wala ay saa yoo xam ne bis bu ne mu jàng ko bu ëllëgee mu amalee fa ñu mën continuer li gën tam du lu war waaye li gën mooy ci kër gi mu wut si place boo xam ne fa la koy defee ak sa jaagala wala jar place bu mu koy defee wutam waxtu bu mu koy def te boo xasee ba tàmbali jàngum alquran te loolu lu am solo la boo xasee ba tàmbali jàngum alquran bu la ca nuyu bu la ca nuyu ku la nuyu bu ko fay bu kenn wax ak yow teedu da ngaa noppi ndaxte almalikul jabbaar mooy wax ak yow ci jamono boobu soo boobaa waroo koo waroo koo dogati ngir wax keneen borom bi tabaraka wa taala daf wax ne wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu buñ jàngee alquran na ngeen déglu te xerewlu kon borom xam-xam yi dañ cee jëlee ne dañoo jëlale kii jàng waaye ki ci wetam sax dafa war a déglu te xerewlu ki ki nga xam ne kii daa nekk ci barab bu ñu jàngee alquran daa war ne daa war ne camp boole am xelam akub xolam jëmale ko ci li ñuy jàng di teewlu baat yi di teewlu maani yi bu ko defee maanaa yi alquran ëmb di wàcc ci xelam li alquran yor ci ay leer tam di wàcc ci xolam loolu mat naa def bu ko defee boo jubloo penku yor am njàpp bañ a wax li gën du du du lu war waaye li gën mooy boo jàng alquran bu tal lu tàng toogal bu jekk toogiinu ku toog ci kanamu yàlla bu nettale woon ne da ngaa nekk ci kanamu borom asamaan ak suuf nga toog ci kanamam muy wax ak yow nooy toogee dangay toog toog bu jekk am da ngay sànni fu ne ab tànk dangay toog toog bu jekk kon nag jàppal ne yàllaa ngi wax ak yow kon nag toogal toogiinu lu nga war na toog boo toog ci kanamu yàlla toog bu jekk teewal xel mi teewal xol bi taadan leeri alquran ak mbooti alquran jàng ko njàng mu teey mu sell su ko defee yow ne boo dee jàng na nga xam ne borom baa ngi lay déglu tey borom baa ngi wax ak yow borom baa ngi lay déglu sa baat lay déglu ngay jàng téeréem bi sa na nga xam ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi bi ci gën a gaaw ci yóbbu la ci yàlla mooy jàng alquran bi sell ju ànd ak xerawlu maanaaya ak teewlu ko ak jëfe ko boo fa jóge loolu aslëf la ci teg gini jàng alquran bis bu nekk nga jàng ci aslëf bu ci ëllëg saa nga tàmbalee ko nga yemoo loolu boo ko defee parce que làmmiñ miin alquran soo yaram saf alquran sa garab saf alquran say boo nga xam ne yu bëree bëree bëri ci ay feebar incha allah yàlla dina la ko fegal say boo nga xam ne yu bëree bëree bëri yu ay nit di ragal ba tax ñu dem ci ay jabaraki bu xaama yow doo ko aajowoo yàlla dina la ko fegal ci barke alquran ak mbooti alquran ak leeri alquran noonu la alquran amee doole te bokkut ak nag teete gu muy teete xel mi ak xol bi di ko jëme ci yàlla njàng mi nag li ci gën mooy li ngay wax nga xam ko ndax boo ko xamul kon yàllaa ngi wax ak yow te li yàlla di wax ak yow xamoo ko ku dem lee yàllaa ngi lay wax ci alquran di la sant loo xam ne yaa ngi koy sàggane mbaa mu lay tere loo xam ne yaa ngi koy def te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam rubba taalin lil qurani wal quranu yalanu bari na kuy jàng alquran te fekk alquran a ngi koy rëbb lii tax alquran dina rëbb mat naa moytu kon nag boo dee jàng alquran fexeel ba xam alquran ji ngay jàng lan la bu fekkee ne bi jàng nga ak lépp ci alquran ay lan muñu arab lii doon cosaan mooy jullit bi moo xam ci arab dara lu bon bon loo xam ne bu day jàng alquran bu mun ta xam li ci alquran lépp it dana xaw a dégg sens bi ba nga xam ne dana xam li laa ji bëgg a wax naka am atul lu am solo bu fekkee ne bi yow da ngay am français boo xam ne loolu mënoo ko amoo chance am kon lu gàtt-gàtt ba fabal ak téere boo xam ne traduire nañ ko ci ci français wala ci anglais te nga tànni kay traduire da nga moytu téere boo gis ci marché bi rek ñu traduire nga jël dafa ne daal nay baax téere bu fekkee ne di ko traduire ab orientaliste la ab saay-saay la boo xam ne bi dafa jóg ngir saboté diine dafa jóg bëgg a lamboo baatu liberté de pensée ba fas yéene yàq alquran yàq fas-fas jullit ñi bind ci ab téere traduire ab kaamil nga jóg ne yow ñàkk wërsëg ba yem ci kaamil boobee jënd ko te xammee woo ko te am na ci traduire yi boo ko jëndee la ngay jàng lépp musiba dong lay doon moo tax faaw nga tànni kay traduire kan la waaye ala kulli xaal jullit bi li muy jàng na fexe ba xam ko na ko teew bu ko defee nag itte ju toll ne ci ngay def ci am loo dunde ak loo dundal sa njaboot def ko ci xam li ngay jàng ci alxuraan lu mu tekki kon nag ci mën a xam la sa wërsëg ñaareelu médicament bi bi ñuy fare bi ñuy faje feebaru doful iman mooy yëg màggug yàlla wala boog jéem a yëgal sam xel ak sam xol màggug yàlla subhaanahu wa taala da ngay jéem a xam tur yàlla yi jéem a xam ay melokaanam te jéem cee xalaat yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent tur yooyu jéem leen a xam jéem leen a xam yàlla am na ay melokaan yu bari yu melal boppam ci alquran ak ci làmmiñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sunnaam melokaan yooyee jéem leen a xam te laaya yi nga xam ne moo indi melokaan yooyu bari nañu lool jéem leen a xam qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad ak yeneen saar yuñ demee wala yeneen aay yuñ demee law anzalna hada alqurana ala jabalin wallahu alladi la ilaha illa huwa almaliku alquddus alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbar tur yàlla yi nga xam leen melokaanam yi nga xam leen di ci xalaat xam la mu ëmb ci ay maani su ko defee yëg-yëg boobu yëg-yëg boobu nga xam ne moom ngay yëg maani yi tur yàlla yi ëmb ak melokaan yi nga fexe ba mu sax ci sa xol ak bi ci say cër nga di ko jëfe saw làmmiñ di ko tudd say cër bi ca bàyyi xel ci seen i jëf mu ngoog bu ko defee aaya yi nga xam ne ak hadis yi nga xam ne ñooy wane màggug yàlla bu ko ab jullit xalaatee ab xolam tiit bari na lool bari na lool bu ko defee dana nga ca jëlee ak ragal yàlla xam ne moom muy buurub nit ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi mu ngoog loolu bu ko defee jullit bi na góorgóorlu ci xam ci lépp lu mu ci mën a xam yàlla mooy aji dund ji dul dee mukk nit ñi ak jinne ñëpp dañuy dee yàlla mooy ki not ñëpp not jaamam ñi yàlla mooy ki nga xam ne ki dënn gure googu nga xam ne dafa baatu lool am doole bu melaxee ci biir weeru wax set mbaa loolu septembre ba melax gi na rey rey weex tàll mel ne luy bëgg fokk bët yi ba nga xam ne dënn gi ñëw na am doole bay bëgg a fokk nopp yi ba ñu yaakaar ne day tuj toj miir yi nga tiit ragal ne mbaa dënn gi daanuwul ci sa kaw néeg mbaa sa néeg dëkkandoo mbaa reyul nit ci koñ bi dënn googu yi ba nga koo xam ne ak ba nga ko xamul moom la muy def day sàbbal yàlla ci baatam boobu moo tax subhaana man yusabbihu raadu bi hamdi wal malaikatu min xiifati tudd naa sellu buur bi nga xam ne baatu dënn li muy foor foor foor moom lay sàbbal malaaka yi ñoom la ñuy sàbbal ñoom ñëpp dañ koo ragal mooy borom bi subhaanahu wa taala mu ngo yàlla moom mooy aji tedd ji mooy ki nga xam ne ku ko tooñ am na katt nag mën a fayu mooy ki taxawee adduna ak alaxira mooy ki dul nelaw te nga ment du ko jàpp mukk mooy ki nga xam ne kursi yoom arasam ak kursi yoom daj na asamaani juróom-ñaar ak suuf si yàlla moom mooy ki nga xam ne lu nit def ci fu wér mbaa fu ay nit fekkee yàlla gis na xam na dégg na lu nit nëbb ci xolam yàlla xam na mu ngo yàlla nee na ci alquran lépp lu ngeen di nëbb ci seen xel yi ak seen xol yi yàlla xam na ko dana ko génn mu ngoog yàlla xam-xamam bu yaatu ba andi na ci ay aaya borom bi tabaraka wa taala bi nga wax wa indahu mafatixu lxaybi laa yaclamuha illa hu wa yaclamu ma fi lbarri walbahr wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xabbatin fi zulumati alard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitabin mubin suutul an'am aaya juróom fukk ak juróom-ñeent borom bi tabaraka wa taala nee na mboolem caabi xam-xami xaybu mi ngi ci sama loxo man yàlla kenn xamul xaybu ku dul moom yàlla moom yàlla nag moom moo xam lu ci jéeri ji ak li ci géej gi géej gi yàlla moo xam li ci nekk ci ay jën ñaata la moo xam li ci nekk ci ay mbindaafoon lépp ñaata la jéeri ji yàlla dong nga xam li ci kaw suuf si ci ay nit ci ay fas ci ay mbaam ci ay xaj ci ay till ci ay ganaar ci ay mellantaan ci ay picc yu naaw ci ay gaynde yàlla moo xam mboolem li ci jéeri ji ci ay mbindaafoon mu ngoog yàlla mooy ci xam lépp xam mboolem garab yi nu wër garab boo ci xam ne gi wenn xob lax na ca ba yàlla dagg wadd dal ci suuf ci xaaji guddi mbaa ci digg bëccëg yàlla yëg na ba xob woowee waddee yëg na ba fa mu dal kenn ku bokk ci nun te mu tëddee ba guddi mu jóg jàpp ba sell tëj ab néegam fay ab lampam di julli yàlla di jooy ngir ragal yàlla ak bëgg yàlla la muy wax yàlla nga koy gis la muy wax yàlla nga koy gis mi ngi koy dégg la muy wax yàlla nga koy gis yàlla nga koy dégg ba mu jógee di wuti gone bu jigéen gu mu takkul di def ak moom lu xaraam mbaa muy wax ak moom lu xaraam ñu aw ca dansin ba wala ñu aw feneen fu bon fa ñu aw yàlla nga leen tëg bët leen gis leen dégg yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur lu ngo borom bi tabaraka wa taala nee na amul lenn lu tooy mbaa lu wow lu nekk fenn ci kaw suuf si ndara du yàlla xam na ko tey kat bind na ko bind na ko ci ab téere buy leer ma ngo borom bi tabaraka wa taala dala wax ne wa ma qadaru llaha xaqa qadri والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين borom bi nee na kattanug sa borom yàlla ak dëgg-dëgg dayoom nit ñi joxuñu ko ko ndax xamuñu ko te nee na yàlla moom asamaan yi ak suuf si asamaan yi ak suuf si bu àllaaxira lépp da koy taxañ téye ko ci benn loxoom téye ko ci benn loxoom surtout Zumar aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñaar mu nga moo tax ba borom bi tabaraka wa taala boo dee xalaat ci moom sab xol day tiit sab xel day ragal boo seetloo ca xissab Muusa Muusa day ku yàlla xejjal def ko yonent boole ko ci ulul azm yàlla di wax ak moom yàlla di wax ak moom yàlla dafa daan invité Muusa ci aw doj bu mag benn montagne bu mag bu ñëwee Muusa toog fa du gis yàlla waaye nag yàlla di wax ak moom xam nga Muusa fi yàlla jëkkee wax ak moom mooy que nag ba mu jógee Madina bi ñibbi Égypte du ànd ak soxnaam dem ba ci àll bi ci guddi gi ñu réer xamatuñu ana yoonu dëkk ba ñu liw amuñu safara wu ñu jaaroo mbaa lu ñu taale pour togg Muusa dem ba mu yàgg mu seen lu mel ne ab jéenéer mu seen lu mel ne aw safara wuy tàkk mu ne soxna si xaar ma fii jéenéer bare may seen ma dem fa yaakaar naa ab taal la su ma fa fekkee nit ma tibb ca safara wa andi ndax nu mën cee togg mën cee niitu ma laaj koy tam ana yoonu dëkk ba ndax danoo gëlëm soog nga toog di ko xaar Moussa yor aw yotam bi muy sàmm ndax Moussa ak sàmm la woon dema dema dema dema dem ba ca xuru sell wa ba mu demee ca xur wa fa mu seenoon lay tàkk fekku fa taal fekku fa dara leer gaa nga fa nag falamma ataaha nuudiya ya Moussa inni ana rabbuka فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري borom ba li fa fekk waaye du dul jëmm ji ak leer la fa fekk ba mu demee yàlla wax ak moom ay wax yu dëgëre noonu yi ma wax léegi Moussa di bëgg a tiit te suñu borom yàlla bëgg naa wax ak moom ba yónni ko bëggul mu tiit tax mu wàcc nag ba wax ak moom waxinu doomu aadama ne ko wama tilka bi yaminika ya Moussa Moussa li nga yor ci sa loxol ndeyjoor lan la loolu li nga yor lan la Moussa daal di ñeme nag daa tiitoon ndax daa gisoon ak leer rek dégg baat xamul fu baat bi jóge waaye nag bi baat bi waxee ak moom waxi nit ne ko yet loolu li yor sa loxol ndeyjoor parce que aw yet la loolu li yor sa loxol ndeyjoor lu mu doon yàllaa nga koy laaj teel yàllaa gën a xam lu mu waaye da koo bëgg a delloosi ndax xam na ne tiit na wa ma tilka bi yaminika ya Moussa Moussa door a door a door a dellu si nag xel mi xaw a dal mu tàmbali nag di di di expliqué naa ko ya asaaya atawakkau alayha wa ahussu biha ala ganami wa liya fiha maaribu uxra mu ne ko saaw yeta bi sa doo yeta dama ciy sukkandiku bu may dox mais ku ko laaj li mu ko doyee da ko rek lu mu doon waaye xel mi dal moo tax mu ne ko dama ciy sukkandiku bu may dox ak itam bu ma dee sàmm bi ci gàdde samay gàtt gàtt bu bëgg a féew ci laa koy sànni mu mu jaar ànd ak jaar ci yoon yi ànd ak gàtt yi du ma demee itam ba gis ak garab goo xam ne dafa am ay meññet yoo xam ne daa sori kaw ma xalab doo xam ngeen xalab de ci laay xalabe mu nga wala ci laay balaxu bu ko defee meññet mi mën a wàcc ma mën ci jox samay gàtt ñu lekk ah wax ji waxtaan li bëgg a neex de xel mi dal na sama borom yàlla ne ko alqiha ya Moussa Moussa sànni ko sànni ko fa alqaaha Moussa sànni yet wi fa ida hiya hayyatun tasaa naka mu ko sànni yet wi daal di doon jàll jàll ji bëlëw bëlëw Moussa tiit daal di ragal naka man jóg naka man yuru moon aw yet jàll laa yor qaala xudha yàlla ne ko téye ko Moussa wala taxaf bul ragal jaan ji sanuiiduha sirataha al ula nun yàlla daanu ko delloo ba mu doonoonu yet nam ko danoon te bu jëkk ba naka Moussa dem téye rek mu daal doon yet foofu li fi nekk ci ay xikam bari na lool kattanu sa borom yàlla gu amut limite mi ngi ndax te ay léewén Moussa li mu yor na aw yet la moo ko fàq ci àll ba du jaan du jaan waaye yàlla lu ko soob mu soppi ko lu ko soob te waxtu ba mu ko soobee yàlla bu ko neexee microbe bi mu def ko jaan léegi léegi léegi léegi dañu yet yu doonal jaan rek mu doon jaan waaw moo tax yàlla moom nga xam ne mën na lu ne ci waxtu wu ne des koy gëm jéblu ci moom jéblu gu wér Moussa bi mu ko nee jàppal jaan ji bu doon ku gëmam yox yoxi du ko ñemee jàpp waaye jàppal jaan ji nga jàpp ak gëm nga ak ngëm noonu lay mel yàlla bu la jàppaloo jaan nooy def jàppal bu la yàlla daanuloo ci teen nooy def daanu bu la yàlla nee bàyyi fi démocratie ak socialisme ak capitalisme te ñëw ci islam nooy def ñëwal ñëwal li la yàlla wax rek ci la njëriñ ne bu la boo ko defee foo ne fekk fa jàmm jàmm fekk la bu la yàlla santee nga bañ mu tere la nga nga nga nga bañ la nga nekk di ca wut jàmm yàlla jox ko ndigalal mu doon sam noon doo ci fekk lu dul ay ak fitna bu dee jàmm amoon tam yow doo gis jàmm bug Moussa yàlla ne ko téyel yet wi téyel jaan ji mu téye ko mu nga mu daan dooleen aw yet mu nga mu daan aw yet ci saat mu ne ko dugalal sa loxo ci sa poos ci sa baatu mbubb boobu mu dugal loxo bi ci baatu mu bi génne mu weex kàll mel ne kayitu tabax mu delloowaat mel na meloon mu ne ko ñaari firnde ngoog ma jox la yonent day am mu'jiza maa la yónni man yàlla demal ca Firawna boo demee nga waar ko nga dellu ci yo ci yàlla te jaamu yàlla te bàyyi waa réew mi ñu bàyyi yàlla ñu jaamu yàlla te mu bàyyi woote bi muy woote ne moom mooy yàlla moom Firawna xëcc ba gudd na waaye rek li ma bëgg a wax mooy Moussa yàlla xejjal na ko ba tax yàlla daana wax ak moom ay yooni yooni yooni yoon boroom xam-xam yi nee nañu yàlla wax na ak Moussa junni yoon yoon wu ne yàlla jox na ko junni xam-xam moom Moussa li mu am ci xam-xam mu toll benn bis nag xanaa li mu wax yàlla bari na te musta gis yàlla mu ne yàlla dama laa bëgg a gis arinii anzur ilayka dama laa bëgg a gis ah Moussa wax na lu ëpp nag arinii anzur ilayka rabbi arinii anzur ilayka saa borom yàlla won na ma gis la yàlla ne ko lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal jaalahu dakkaa wa xarra Moussa saayiqa waaw yonent bi yonent yàlla Moussa ne sans borom yàlla dama laa bëgg a gis borom bi ne ko doo ma mën a gis nag waaw doo mën a gis waaye xoolal montagne bi jabal mooy montagne bu mag a mag xeer bu mag a mag aw tund lu mel ni aw tund loo xam ne lépp benn xeer wu ni munul la mu ne ko xoolal montagne boobu montagne bi su fi mënee su mënee résister su àttanee li ma koy teg da nga mën a gis xool ko Moussa fixé montagne bi Moussa fixé montagne bi xool ko kiiraay yi nekk diggante yàlla subhanahu wa taala ak Moussa du juróom-ñaar fukki junniy kiiraay benn kiiraay ba ca gën a woyof yàlla dindi ca lu toll ne bën bënu pusa jaarale ko ci montagne bi montagne bi nekk pënd montagne bi nekk pënd Moussa daanu di xëm Moussa daanu di xëm na kooku dana gisee kooku du gisee falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan mu def ko pënd wa xarra Moussa saaiqan Moussa daanu suuf di xam falamma afaaqa moo tax ba mu ba mu ximmali ko xam nga lu mu njëkk a wax subhaana tudd naa tak sal bu duma la jéem a gis mukk attanu ma ko gaa ñu yàlla ku mag la yàlla du du moroom boroom la des ko war a jaam gaa ñi suñu yenn ki pas pas fanu ñu ñu fa teg yàllaa ko yeyoo subhanahu wa taala mu ngo yàlla moomu jéem a xam ak def ci melokaanam yooyu te jéem a jéem a xam maggam gi bokk na ci liy dolli leeru gëm yàlla bokk na ci liy dindi feebar boobu nga xam ne mooy feebaru doxful iman moo tax ba sayidna ibnul qayim yàlla na ko yàlla yërëm nu ngi wax ci wax ju neex yu muy jéeyoo borom bi tabaraka wa taala wala muy wax ay melokaanam mu ne yu dabbiru amral mamalik nee na borom bi moom mooy doxal mboolem nguur yi mooy doxal mboolem nguur yi xamu leen ne nguur kenn du ko wate nguur goo xam ne lii bala ngaa watee da ngay taxaw fu ne nga kàbbaaji la taral naan may leen ma bu ngeen a wateelee danaa wàññi ceeb bi danaa wàññi suukar si danaa yokk gerte gi seen dara du ci dëkk nguur kenn du ko wate nguur kenn du ko coup d'état ba yow sa président wóolu la jox la armée jox def la ab général nga dem bàyyi ba guddi nga wor ko yebal ay officier ñu dem ak quarante rajo ba quarante këram dem di fatal re re ay bakkat loolu du nguur da ngaa sàcc dong loolu du nguur nguur dee su ko wate nguur dee su ko coup d'état nguur kenn du ko doon ci bàyyi ak maam man man daal sama bàyyi daal moo doon buur réew mi roi la man nag maay maay maay ñu ngi tuddee sax ah prince héritier loolu du nguur xam ngeen kuy buur kay buur mooy ka nga xam ne kii daa mustajaari ci bañ a am bañ naan daa judd te kenn amalu ko bañ naan bañ naan def ko amal te amam gi tàmbaleewul fenn te du yem fenn te naka jekk ba mu amee la doonoon buur ba mu mosee nekk ba mu mosee nekk daa mos a nekk buur naka jekk musta wàcc te du wàcc kenn nu muy ko kàtt kookee mooy buur te itam moom la moom buur yi ngeen dégg lu ñu moom waaye dama rek buuru France moom du France comme Amérique moom comme Amérique buuru France ah comme moom Sénégal buuru Afrique du Sud kooku dool du buur loolu du nguur buur goo xam ne gi dañuy rëdd aw bëgg du gàttu tool ci deux cent deux cent mille kilomètres naan la yaa yaa yaay buur fii fee nag wala daa fay buur loolu du nguur buur daa moom Afrique moom Asie moom Amérique moom continent yi yëpp nga boole globe terrestre bi lépp lépp lépp muy benn globe boo xam ne rëdd bi ko wër quarante mille kilomètres la muy benn planète bu ndaw bu tuuti bu bokk ci ay billions yi billions yi planètes yi mu moom système solaire bi du juróom-ñeenti biddiw wala fukki biddiw ak nangam doon ay jaamam ñun ñëpp kenn ku nekk di rulle te yoon moom la sàkk mu am ay jenti jant am ay weer ay weer yu weer am ay biddiw yu biddiw am ay galaxie yu bare bare bare bare kookee mooy buur te moom mooy dundal te mooy rey te mooy yéege te mooy wàcc kookee mooy buur kookee moo sañ a joxe ndigal te ndigalam des ko war a topp moo war a tere te tereem des ko war a ba ku fi buur buur lu kudul kookii wallaay bis dina ñëw ñu def la nañu def jàkk sirat ana jàkk sirat ana mitterrand boog ana mitterrand am ci biir suuf alum fa fekk am seeta ginnaaw ba alum fa fekk sahaa moom wallahi wallahi buur bi benn huwa allahu alladi la ilaha illa hu moom yudabbirul mamalik yaamuru yàlla moom moo sañ a joxe ndigal ku dul yàlla dangaa war a wéy ci ndigalal yàlla wa yanha yàlla war a tere wa yarzuq yàlla yéege wërsëg ku dul yàlla mënoo yéege wërsëg mënoo koo dolli mënoo ko wàññi waaw wa yumiitu wa yuxyi yàlla mooy dundal mooy rey ba nga nekkee ci sa biirub yaay di mbémur juddoo ko la yàlla yebal malaaka ci benn instant mu bind lay sa wërsëg ak kañ ngay juddu ak kañ ngay dee wa yuizzu wa yudil yàlla mooy kii yëkkate di taral te mooy toroxal yàlla mooy wut wut leen ci guddi ak bëccëg wax leen ma rek bëccëg bii nu nekk lu ngay taxal sopp ko doon guddi kattanu yàlla subhanahu wa taala koo ci dimbali kan mu yàlla moomu mooy awante bis yi ak jamono yi yàlla moomu moo fab dammel bu ñuy wax laj joor ngoone làttir teg ko fi di ko nattu di bind ay jëfam ak i bàyyeem ba mu neex ko mu jële ko fi teg fi fadar bu di ko nattu di bind ay jëfam ak i bàyyeem ba mu neex ko mu jële ko fi teg fi keneen ku ko neex mu ko di ko awante ba ba mu neex ko mu tukkal adduna kenn ko de mu taxawal la la nga def lépp mu jaar teg yow la tey yiw jaar ci ndigalam mu fay la ko muy xéewal di àjjana la tey la tey ay bakkaar jàdd ay ndigalam mu def la ci naari jahannam te kenn du ko faj oo tilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas yàlla moomu moo yor kaw suuf yor li ci biir géej ak li ci doon suuf te xam-xamam ba dara du ci jaxasoo yàlla moomu wata yooyu ngeen dégg ñuy riir wata bu ne fa mu jóge ak fa mu jëm yàlla xam na ko lam fay doxi yàlla xam na ko dana antam doo antu yàlla xam na ko yafaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan bis bu ne waa gaw suuf ñëpp ay xaaj xëy di ko laaj muy jox ñëpp te li muy joxe du jeex mukk ma nga kooki mooy buur kooki mooy rabu samawati wal ard yàlla moomu mooy nangu tuubu aji tuub mooy fay ku def lu baax jëf ju rafet mooy dimbali ku ñu tooñ mooy alak ab tooñkat mooy suturaal ay awra ku def lu ñaaw yàlla moo lay suturaal yàlla moomu mooy ki nga xam ne mooy fekk xel muy reflété akum tiit bu def cag dal mooy yëkkati ay nit di wàcc ay nit bu fekkoon ne nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp dañoo dajaloo ci benn place nit ñëpp waxuma waa Sénégal de waxuma waa Afrique de nit ñi ñëpp la ko tàmbalee ci aadam ba adduna tukki buñ taxawoon ci benn place kenn ku nekk laaj la nga xalaat lépp la nga bëgg lépp sax laa mi jaar te mu jox la ko ba mu mat sëkk mën na ko te wàññi ci nguuram gi dara ñëpp bu ñu àndoon doon ñu ragal yàlla ñëpp ànd jub xoj ba mel ni Seydina Muhammad du yokk ci nguuram gi dara ñun ñëpp bu ñu àndee saay saay ba mel ni Iblis du wàññi ci nguuram gi dara kooku mooy yàlla subhanahu wa taala amul kenn kuy bokk moom nguur gi kenn la amul nawle mooy ki ñëpp jublu amul doom amul soxna ku kawe la amul ndend léppay alku lu dul jëmmam ji lépp fiy jógee lu dul nguuram gi kooku mooy borom bi tabaraka wa taala melokaanam yooyu jéem cee xalaat te jéem koo fàttaliku bokk na ci li nga xam ne dana dimbali nit ki pour mu mën a am doxul iman mën a dañ ci moom kon boog mbirum ñaar médicament ñaareel bi ci liy dindi gëm yàlla gu manque gu faible mooy ngay faral di xalaat ci màggum yàlla dafa am ay aaya alquran ak i hadis am ay téere spécial yoo xam ne ci loolu la ñuy bind jël bi daf koy jéem a xam